li ci yéene kaay yi dañ ci àndandoog Mohamed Alimu Ba dalleen ak jàmm démb ñoo lànk ñu yoon ci dem yi ngir xool naka la ñuy waat encore ki di président Macky Sall dañu am doole surtout ñu puus kii di président Macky Sall ñu ba seen leader bi di Guy Marius Sagna waaw dem nag lu amoon ci wàllu originalité mooy dañoo jaar ci kanam camp pénal sama naataango yi ne xaw waxal rek dañoo assiégé camp pénal le ne daanaka dañ ko assiégé ndax dañoo marché ba foofu bi ñu fa yegsee ñu nekk foofu di crier di saluer kii di Guy Marius Sagna jàpp ko seen champion kooku dañ ko jàpp tëj ko foofu ci prison bi sama naataango ne ah loolu am waaw ñoo lànk dafa mobiliser démb ah ko quotidien ne dañoo campé ci camp bi waaw dañoo mobiliser ngir won Guy Marius Sagna daanaka ñoom ñu ngi ak moom ba léegi waaye nag police dafa bunkériser prison bi daanaka mayu mayuñu kenn mu approché ko sama naataango ne ah démb manifestation pacifique lañ def waaw ñu wax Macky Sall na libéré Guy Marius Sagna te ñoom pare nañ ngir kon xeex li nu mel collectif bi ne Macky Sall na bu bëggee jàmm na bàyyi kii di Guy Marius Sagna ndaxte ndaxte duñu ñu baal lu ñuy def nii tant kooku bàyyul kii di Guy Marius Sagna wàññi prix njógu courant bi sama naataango ne ah kii di Macky Sall lépp loo xamante ni am na Sénégal daanaka moom moo ko indi ci wàllu démocratie salfañe suñu démocratie fooyee ko loolu nee nañ parewuñu nangu ko te Macky munul def li nu mel ci di maître la Diouf moom nag démb defoon na conférence de presse ci wàllu troisième mandat bi waaw maître la Diouf bi mu woowee journaliste yi waxtaan ak ñoom ne leen man troisième mandat Macky Sall bi am naa ci lu may wax nga sama naataango bii di journal Le Quotidien la Diouf lan la wax la Diouf nee na ah nga yéen ngi wax ci ay troisième mandat man lu ma jàpp moom Macky Sall du def troisième mandat alors laa wax jël naa ko sànni fële Macky Sall mënutu mënutul def candidature xanaa kay am na ñi ko bëgg force forcer forcer barrage mënul am 2024 mooy barrage boo ñëwee ba terminus te da ngay gaare mënoo bëtt barrage bi Macky Sall mënu ko te man lu ma jàpp mooy entourage bi moo koy poussé ñoo koy ne yow euh, président yow di nga war a def troisième mandat ah essayer rek xëy na troisième mandat dina jàll gis nga lu nga def Sénégal kenn def ko ñu lay poussé ngay de waaye nag bu yegsee bu yegsee ci cappaandaw ja ah, foofu lay xam ni barrage am na nag la tribune ne ah daanaka Me El Hadji Diouf disqualifié na Macky Sall sama naataango bi di Sud Quotidien ne ah daanaka daal wax leen rek Macky Sall kii dee Me El Hadji Diouf sifflé na ko hors jeu 2024 saa muy sol mayo munul nekk du ci bokk mu leer nañ ci wàllu wuule ci wàllu nag coronavirus bi xam ngeen ni umra bi temps yi am na ñoo xamante ni dañ fa bëgg a dem defi seen aj bu ndaw boobu waaye nag ambassadeur Arabie Saoudite rappelé na ni bëgguñu coronavirus bi dugg ci réew Arabie Saoudite wóorul kenn xawul kan moo yor corona mun nga fa dugg indi problème moo tax mu ne nañ arrêté nañ arrêté waaye nag du arrêt total. du loo xamante ni dañ ko jël décision définitive décision suspension en attendant ñu xool bu fekkee ni jar na ñu reprendre na ñu reprendre waaye nag fu mu toll nii suspension la su naataango ko quotidien ne ah fu toll ni umra bi ah def nañ ko quarantaine umra bi en quarantaine te boo moyul aaj bi ah boo moyul moom itam ah mi ngi noonu boobu tamit mën na ci jaar am ay problème la ñu wax ci décision CEDEAO yi lépp loo xamante ni cour CEDEAO jot na ko jël ci wàllu décision Sénégal dina ko ne ah man de nangu ma lool man du ma ko exécute sama naataango ne ah léegi nag jàpp nañ la mauvais élève moo tax ñu Sénégal war na xoolaat boppam ci wàllu ci wax li mel sa mooy vice président juridiction boobu mi ngi woon ci Sénégal temps yëpp def tournée di xool mission sensibilisation bi mu defee conclusion nee na ah Sénégal man de qualifié na la mauvais élève yow jàngoo ci lu ma la wax noonu maîtriser woo ko ci lu bëri defoo ci dara Sénégal sax amul comité bi xool naka la ñuy appliquer décision yi ñu jël ci wàllu CEDEAO décision yi ñu jël ci cour boobule dossier yi ñu jot a jël am na ci ay faiblesse yu bëri ah sama naataango bii di Sud Quotidien ne ah <laughs> fu mu toll nii daal daanaka Sénégal qualifié wul ci wàllu wuule ñu wax ci Guinée ndaxte Alpha Condé reporté na référendum bi ak législative yi dans quinze jours naa naataango bii di journal Le Quotidien ne ah nañu xam ne dëgg Alpha Condé dafa reculer ndaxte xam na ni opposition yi parti ci naka noonu itam communauté internationale bi observateur yu bëri demuñu foofu dañ ko dañ ko ba ndaxte moom nee na day def lu ko ne moo tax ñu ne ko waa léegi puisque yow nga jàpp ni yow lu la ne loolu ngay def léegi defal sa élection ñun nekkuñu si moo tax sama naataangoo ne ah lii kay mooy wane na ni kii di Alpha Condé dafa reculer dafa reculer ndaxte gis na ni daanaka kenn faale ko ci élection yi mu def. Habsa asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ñàkk sàmmonteeg ak engagement bu Sénégal ci cour de justice bu CEDEAO coowal ñetteelu mandat bi ak doxu ñaxtu bi nga xam ne moom la waa ñoo lank doon amal démb ci àjjuma ji moom la ëttu yéenekaay yi ñu xëya ndool gën a waxtaane tey jilee dañu koy door ak sur quotidien suñu réew engagement ci cour de justice bu CEDEAO matalewu ko loolu la waa Sud Quotidien bind si seen xët bu njëkk ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication nee na ginnaaw benn mission boo xam ne cour de justice bu dañ ko amaloon fii ci Sénégal ki nga xam ne moom lañ toftal ci njiitu boobule juridiction da doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi démb ci yenn yi nga xam ne ñu ngi koy ñaawlu ci Sénégal mooy amul benn comité boo xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba bépp décision boo xam ne jël nañu ko ñu mën ko jëfee seetlu nañ leneen mooy dossier yi ñu war a traité daal néew na lool ba ca topp mooy décision yi nga xam ne dañ ko jël Sénégal néew na ji nga xam ne jëfe na ca ndigal Pierre B. Ouattara di xamle ne ci atum 2001 ba tey at bi nga xam ne ci lañ taxawaloon boobule cour li tolloog ñaar fukki affaire ak juróom-ñett jot nañ ko indi foofu foofule ci seen kanam te ña ko fa indi di doomu réew mi wante nag lenn daal moo leen di jaaxal décision boo xam ne cour de justice jël na ko Sénégal du ko jëfee moo tax it cour de justice bu CEDEAO ci biir soleil nee na li yëpp li ko waral mooy ñàkk dëggu ci wàllu politique waaye nee yit ñi nga xam ne ñooy indi seen dossier foofu ñoom it kenn demul ñu des bu ñu bawoo ci loolu wax ci coow bi am ci ñetteelu mandat bu Macky Sall ak maître El Hadji bi ne xamul kan daal moo fi nar a am ñetteelu mandat mais kii di Macky Sall du ca bokk loolu la waa tribune bind ci seen xët bu njëkk maître El Hadji Diouf nee na Macky Sall xalaatul benn yoon amaat fii beneen mandat ngir firndeel ko nag maître El Hadji ci jàkkaarloom ak taskatu xibaar yi démb dafa teg ay vidéo yoo xam ne dañ ciy wane Macky Sall ci boppam di wax ne ñetti mandat yu tegle moom àndu ci benn yoon avocat bi di maître El Hadji Diouf nee na Macky Sall moom xaw ma ku bokk ci mbir yi waaye du moom teg ci ne moom nag da ciy bokk bu baax a baax ci atum 2024 ci biir waa grand place metti di xamal ne Macky Sall bu nangu benn yoon ay nit yoo euh, xam ne amuñu benn njëriñ di ko yàqal avocat bi ba tey yëkkati ay kaddu di xam ne ne moom mooy avocat bu njëkk bu Macky Sall saa su ne da koy layool wante nag li ñuy sàkku ci moom mooy mu fexe ba xoolaat ñi nga xam ne ñoo ko wër ñi ko wër ñoo ngi bokk ci secrétariat exécutif national waa grand place xam le ne ci diggante yaa xam mbay sax Mbaye Ndiaye yëkkati nañu ay kàddu yoo xam ne bu tàng jër la ci sa diggante da war a jël say responsabilité moo gën bàyyi lépp ci ndodd journaliste yi lépp loo xam ne journaliste yi wax nañu ko ci sa gémmiñ la ko jëlee kuréel bi nga xam ne moo ëmb cadre républicain yi ñoom it yëkkati nañu ay kàddu ginnaaw coowul bi am ci wàllu ñetteelu mandat bi le ci biir vox populi waa CCR rawatina njiit la Abdoulaye Diouf Sarr di xam le ne bi la débat ci boppam moo warul te nee nañu daal ak a nekkoon ci euh, gannaawam cadre APR moomu ah, lee ne jot na nag ñu dakkal lile kàddu yi nga xam ne moom la Boun Abdallah Dionne ak Mbaye Ndiaye yëkkati gën na fësal ñàkk àndam ak ñooñu le ci biir source a ak coow li yëpp nga xam ne ñetteelu mandat président Macky Sall jur na ko ci réew mi waa 24 heures ne jot na président Macky Sall addu ci ndax bile débat warul te askanu Sénégal ci boppam moo méritowul li ni mel ñu bëri si askan wi démb dañoo génnoon ci mbedd mi ngir manifester ak waa ñoo lànk ñu teggi loxo kii Mari Sagna ko xamal ne askan wu takkoo takkoo fa teewoon Guy Marius Sagna def na ci biir kaso bi juróom-ñeent fukki bés ak benn tey ji leen loxo Guy Marius Sagna lañ doon yuuxu ci biir boobu lee ñu des ci biir manifesté lee ak waa critique ci biir cellule terroriste bi nga xam ne ca la nekk Guy Marius Sagna daal lenn wër na mooy moo nekk ci xolu askan wi bu ñu sukkandikoo ci professeur Babacar Diop nee na xeex bi ñuy xeex nekkatul politique ginnaaw rangoñ yi nga xam ne moom la ci waajur bu góor bu Guy Marius Sagna jota ni kii di Macky Sall bu xoolaatee bu baax a baax ba la manifester xelam dina dellu siwaat mu teggi loxo kii di Guy Marius ginnaaw manifester bu am solo bi nga xam ne moom la doon amal démb ci wetu camp pénal waa ñoo lank nag ñu ngi araftu beneen yoon ca palais ba la ñu jëm libération bind si seen xët bu njëkk ni président directeur général bu GTI nga xam ne dañ ko toppee woon juróomi téeméeri million ci kopparu CFA teggi nañu ko loxo di luy doy bu ñu sukkandikoo ci waa libération ci wàllu tàggat yaram stade bi ñu waxtaanee ñaar fukkeel ak juróom benn journée Liga ak jongante ci biir mbokk bi nar a am ci diggante Real ak Barça ñu duppeeku Classico waxtaan nañu it ñaar fukk ak juróom-ñetteelu journée bu Premier League ak Liverpool bi nga xam ne dafa bëgg def jéego bu am solo fële ca Watford ñu des ak waa Liverpool ak seen attaquant bi di Sadio Mané ak waa Soleil ne lenn daal seetlu na ko mooy fi mu toll ni daal ci Sénégal ñëpp ay fansu Liverpool lañu ñu jeexale kook ak sunu lomb ci jeexital ay bis bi arbitre yi dañoo fas yéene dem ci grève seen indemnité lañu bëgg ñu yokkal leen ko loolu nag Balla Gaye 2 di ko ñaawlu ni ñii daal mérito nañu ñu fay leen lu ëpp lii lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool tey jile ñu yendoog jàmm ajëro tokk alaaji ci milim réew di Sénégal bis dik rek ñu dal dem ziyaara ji bayti layil aram yéenekaay gi la quotidien coronavirus naka ca ba muy teel la foq seeni mbaxana tekki seeni kàll tàmbale ko sax ci wàllu ko umra bi doon na la nga xamante ni loolee moom dañ ko daal di ber noone kon lëkk yéenekaay gi daal di dégtali ak it matuwaay yi nga xamante ne Arabie Saoudite daal na koy jël seen ndaw li ci réewum Sénégal yéenekaay gi Le Quotidien jot li ko na ay kàddum xëy rek daal di ñu koy dégtal doon kàddu yu dëgg yi nga xamante ne lam ci xamle weesuwul ne wér-gu-yaramu ko askanu Arabie Saoudi ak ujaaj yi moom la ñuy jiital ci lépp loo xamante ni ña ngi koy def ak dindi kon nag lépp lu mu laaj rek ñu ko daal di matale mat na sakk ñetti weer ba tegal benn fan ba ñu ko taaje ci kasu bekk léegi Guy Marius Sagna ay mbokki bopp ma ki jege ñaaleem lëngoog ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jëngukat yi doon waa mouvement ñoo lànk ñu ngay gën a wone ak fétaaral ngir daal di koy génne ci kaso bi enquête yu ni kaay ne ci anam gu takkatoo la ñu feeñaatee démb ci mbeddi ndakaaru yi wane tamit seen doole yi ni kaay gi mel ni ku yéemu ca mbooloo ma nga xamante ni ña nga jubali woon ca bunta campinal ngir defalee ko kii di Guy Marius Sagna ba mu yëg ne mi ngi ci biir waaye am na ñu ko nekkal ci biti Sud Quotidien beneen nuppa doxu ñaxtu waa lank tax na kon ñi daal di sikki mu nekk démb kaso bu campinal ba fetee ci liberté 6 ak seen nuppa xeex jëm ci wàññu tëpp courant bi waaye tamit kii di mbokk ma doon Guy Marius Sagna ñu yewe ko ci kaso bi ci nu mu gën a gaawee rek mu ñibbi ci bokki boppam yi ni kay xëy feelu ko ne diggante pont fo foire jàpp liberté 6 puus puus sax boo ko sànni woon du wadd ngir mbooloo mu takku yuy jàppale waa mouvement ñoo lànk ak nag dox boo xamante ni amaleen nañu ko ci dal wëtali ca campénal ba Guy Marius Sagna ñi man koo bàyyi waaye tamit moom moomele doon ndey mbille gi doon ki nga xamante ni dana giifal am meram ak it nag dalal xelam fa mu nekk jamono ji ëllëgu këru kuraan gi di Senelec moom l'observateur bu ñu doyloo lim bind tey jilee mënees naa jàpp ne kon lampe ya coupé na nag amatul pétrole boo xamante ni mën na koo togg ba di ko ba mën a jox askan anam gu gën lool kem ni ñu koy xaare jamono bu nekk journal bi gën caa sori ni ay wàllu ko coupure yu tar yu jéggi dayu lool yañ fi doon nemmeeku ci réewum Sénégal moo aw yoonu dellu si su fekkent ne rek nag nguur gi matale wut la nga xamante ni warloo na ko ci wàllu ko matuwaay déclate këru ko courant gi la di Senelec ndax it nag amul lenn loo xamante ni lay bàggandiku na ko ba mën a togg ab courant ngir baaxee ko askan wi nga xam daañu ko yittewu yéen kaay gi ni loolee nag mooy njeexital yi nga xamante ni tolluwaayu ko kër gi di saar tàmbale na ngeen topp ma ma wax leen diggante kër gi di CBAO di yëngatu ci wàllum koppar ak borom barke bi di Bocar Samba Dièye fan la ñu mujj ubbil yéenikaay gi fa Walf Quotidien moo xëy xibaar bi tey fesal ko sax ci xatam wu njàkk di xam la ne Bocar Samba Dièye kay dana jëlaat ay ngànnaayam dellu ca kanamu yoon dooraat beneen nupp xare ci diggante mag CBAO ak lubulum alal gi jiboon ni ay tuuma ginnaaw dogal ba nga xamante ni yëkkati woon nañu ko ci toftalu ca atte ba loola yëpp ëttu attekaay bi di Cour suprême gën a kawe ci wàllu yoon ni na ko ni wàllug kayit yi daañu ko ubbiwaat càmbaraat ko yéen kaay gi ni Bocar Samba Dièye ak CBAO seenub diggante jeexagul ci mu yoon wàllug yoon googee ki am lante woon nag moom jaare ko ci luubalam alal mu dem ci genn wàllug milliard gu tegal juróomi million ana fan la mujj libération yéen kaay ni maa leen koy xëy wax am luubal la woon nag ci makaano pa jawdi gi ñu dénk wàllug ndox mi ci ay jamono président directeur général bu GTI moom lañ ci joxar bi woon baaraam patuma moom moomele nag tey jile yéen kaay gi xam leen ne génne lépp ci ay pexe l'observateur ne kii dugg ci kaso bi ab jàngalekat la am ndongom buy def classe supp CM2 la war na loo ba noppi daal di koy miim waaye nag ba doom je juddu ngir lépp daal di leer la ñu ko yóbbu ca kër docteur amal ay test ADN seet seen walluka ko deret ca la ñu xam ne karaw bopp bi ba ci weewu tànk wi sax romb deret yu lépp doom ji jël na ko ci jàngalekat boobile yi ni kay groupe Futurs Médias gi di xam le ni am na ñaari soxna juróom-ñetti doom yu mu nar a bàyyi ginnaaw ngir dem tëddi ci kaso bi booba la ñu fa sori ngir waxtaane wàllu lomb sunu lomb lamb yéen i kaay xëy dégtale ab xamante ne ñooy saytu wàllu ko lamb ji am mer nag la ñu toogaa lekk jamono ji yéen kaay gi ne ñoom arbitre yi ci wàllu ko lamb ji nag njeexantalu ay bis gile seen xel daju sax ñi sax ak mbib ndaxit nag dañuy soobu ci ab gréew la ñuy sàkku weesuwul ne ñi yokk seen wàllu ko ndàmpaay fetal leen ay takkader yu wattu seen wàllu ko kaarange waaye tamit ne ñu ñaari junni dootuñu ko laal ci ab combat ndaxit nag jarul dara mu doon lu Balla Gaye numéro 2 dal di dëggal jàpp ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo di arbitre yi ñaari junni yooye ñi leen di jox doon ab weccate këpp sarax nag jot nañu daal di koy dakkal ndax nag yeyoo wuñu ko ñi nga baat wàllu ko l'observateur Louga loo kër mbërgu la jëm ñun ak gëstu bu yaatu bu mu fa xëy dégtali ab lampe torche nag la daal di ci ndodd góor ñi nga xamante ni ña nga takk seen tubay rek fa yi nga xamante ni seeni borom kër dañoo génn àdduna jiitooli leen bàyyi ba seen ëpp dund mën a ñoŋ sonn nañu jamono jile ngir góor ñoo ñi nga xamante ni ñoo riir watali leen dafa ko tànneef ci ñoom te bu ñu ko seetee ba seen nafs rek la ñu topp ne bu ñu leen nalee ngàcc leen ba ñu set weccu dañ leen fay bàyyi di xaaraat seen yeneen i morom